aousubillahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi ziyaara waa daara ji yëpp rek waa islaahu daara ni ñu ngi jiital ak ziyaar bi xalifatul am sëriñ Muntaxa Basiir di ko ñaanal sunu borom mu yàgg fi lool te mu ànd wér di ñaanal sëriñ Abbas Mbàkke sunu borom yàggal ko fi lool ba naal ci liggéey borom daar mu defe ko ni mu ko bëggee di ziyaare jëwriñu dënk jëwriñu bi di sëriñ Yankuba Gaye di ci ziare suñu suñu jëwriñ eh, Serigne Mame Thierno Amar eh, bu ngeen gisee jotaay bi ak daje bi li ko waral mooy bisub borom Daaru Muxti bi nga xam te ne jub si na dañuy fas yéene jox suñu kilifa suñu jëwriñ seen Pape Niang mu jàllale programme incha allah bu soobee yàlla. Eh, mbokki julli yi mbokki taalibe yi nga xam ne yéen ngi seetaan Touba TV Argentine bu ngeen gisee daje bii ñu daje. Euh, muy njaboot ak waa Daaru Musdi euh, daayira islaahu daara ni bi nga xam ne moo lëkkalee njaboot ak Daaru Musdi gi yëpp fii ci Touba Argentine euh, ñooy daje fii tey di woote woote boo xam ne woote waajtaay ak màggalu Daaru Musdi la woote boobu nag ñu ngi ci Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ci Argentine bi yëpp bàyyiwuñ kenn euh, képp ku dib sénégalais rek ñu ngi la ci yoo bàyyiwuñ kenn rawatina nag euh, suñ mbokki daayira yi nga xam ne ñooy daayira yi murid yi nga xam ne si ñoo nekk ci dëkk bi ñooñu moom dañ leen di wax ne yëf yi seen yëf la kenn woowu leen euh, dañ leen ko yëgal waaw gannaaw bu loolu wéyee nag ñu fas yéene yëkkati ay kàddu yu ndaw rek jëmale ko ci li nga xam ne mooy programme bis bi euh, bis bi xam na ne saa bu weer wi taxawee euh, li ñuy mën a xam ban bis lay tombet ci weeru ci weeru tubaab ah yàlla dimb nañu yàlla dimbale nañu ba ren mu ngi war a nekk le 2 mai euh, lay tombeel incha allahu danañ ko fas ne def ca hôtel Bawen nañ ko daan defee euh, bëgguñu it dara manque ji dañoo bëgg rek euh, lépp luñ ko daan luñ ko daan defe rek ren ñu fas yéene defe ko ñu kawe suñ njott ji noonu euh, kon ah te yàlla dafa dogal suñu jëwriñ maam Thierno Omar mu fekk ko Sénégal waaye nag lépp loo xam ne ñu ngi ko ciy def ñu ngi koy def ci ndigalam euh, ci ndigalam euh, bi mu demee it kàddu gi jël na ko jox ko sëñ xaadim ak sëñ amsa ak waa daayira bi yëpp rek ñu doxal liggéey bi kon bu ko defee damay jël euh, micro bi jox ko ñenn ci waa daayira bi ku mel ni maam Thierno Niane nii mu dugg ci programme bi tuuti ni muy demee bu ko defee rek ñu defar tuuru micro gën a leeral. li nga xam ne noonu lañ bëgg a ci bis bi aoudu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziare di nuyu mboolem ñi nga xam ni ñoo ñuy topp ci euh, à travers euh, Touba Argentine TV di nuyu mboolem ñi nekk fii ñëpp ñi ñu seqal biir daayira islaamu daare ni euh, comme ni ko ñu mu jiitu waxee di ci jiital ci nuyoo bi suñ maam Thierno mi nga xam ni moo daan jiital liggéey bi eh, te jamono ji Moussa na ñëw mu jiite woote bi nii te yàlla dogal fekk ko fi ren waaye ñu fas yéene ko fee wóotu ci mboolem ñun ñi xam ne ñoo nekk ci biir eh, daayira bi islaamu daare ni di fas yéene taxawalal bés bi rek comme niñ ko daan taxawale eh, ci biir loolu ci turu daayira bi yëpp ñu ngi woo mboolem daayira yi nga xam ni ñoo nekk ci ci réew mi di ko jaale ci turu fédération bi nga xam ni moo moo lëkkalee mboolem daayira yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi di leen woo ci bis bi muy bisu màggalu Daarul Moxti di bis bi nga xam ni moom la borom Daarul Moxti ak Serigne Touba si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mi nga xam ni mooy suñu sëriñu ñëpp daje woon ci ginnaaw ba nga xam ni dem na liggéeyali liggéey bu magam boobu ba ñëw ci bis boobu la ñu dajewaatoon muy bisu mbégte bu nga xam ne si ni yaakaar naa ni murit yépp ñoo ko war di di di di feete buñ ko mënee tuddee feet wala def ko sax ak cant ndax manees na ñun li ñuy li ñuy li ñuy jariñoo ci yoon yi buñ mënee wax ni buñ ko mënee àppal bis boo xam ne si ni ca la sotti woon manees na ko jàppe ci bis boobu ndax sëriñ bi bis boobu bu mu jógee ci géej gi lépp lu doon wut ci borom wala lépp lu mu doon ginnaaw bu mu jógee ci géej gi lépp mat te loolu nag naa bu bi mu jógee ci géej gi ci bis bi la tollooloon bu ñu eh, ñëw nag eh, tasante lépp nat ci lam doon wuti waaye lépp nat tamit ci ki nga xam ne si ni moom la ko dénkoon bàyyi woon ko fi ba mu ko dénkee fekk lépp nat mu yokk lépp kon ñaari mbégte yooyu daje woon eh, bépp murit war na ci yow nga di ko màggal kon te bi jàpp nañu bu fekkante noonu kenn defu ko sax mënees naa jàpp ne ñëpp ay am toor waaye nag ci loolu moo tax daayira bi. taxaw ngir maanaam wuutu ci mboolem mbokki taalib yëpp ngir taxawal bis boobu ñu jégalu wax eh, naka noonu tamit di wax ni kon incha allah li eh, ñu ko fas yéene defee maanaam mu bisu liggéey bi eh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi woo ñëpp bu 10 jotee bu 10 jotee incha allah ñu fas yéene commencé njàngam alxuraan mi nekk ci incha allah ba ginnaaw takkusaan bu ko yàlla dogalee kuréel xasida yi door a ñëw ak. ñi nga xam si ne daañu waxtaan ci borom daaru ak ci sëriñ bi fàttali ñu. ni nga ni nga tuddee programme am na solo trop te it maanaam liñ ciy sàkku daal comme noonu ko suñu maam Thierno wax di incha allahu taala fas yéene nañ ko ci guddi incha allah bëgg nañoo yeewi ñëpp daal ci kàttanu yàlla kon nag ñoo ngi ñaan yàlla nañ ci dajeek ngërëmal borom daaru moxti xam te moom moom moo tax ñu dajaloo ci bis boobu ñu ngi ziare ñëpp nag di tuubal ñëpp di jaajëfal waa Touba Argentine TV salaamaaleykum wa rahmatullah